Euh, kon mbokki taaliba yi ñu ngi wéy yéen ba léegi ci ngont bi nga xamante ne ni waa Hizboullahi Karim ñoo nekk njaareem ñoo ko ko def ci nga xamante ne moo di kër sëñ Abdou Akim Mbacke ñu taxaw ki nga xamante ne ni moo di sëñ Abibou Mbacke mu sëñ Seex mu sëñ Seex Tedd Mbacke sëñ Abibou mu ngi lay ziar di la nuyu jërëjëf soxna si ñu ngi lay fay nuyu bu baax a baax ginnaaw bañ la ziaree Mbacke ñu ngi lay laaj li nga xamante ne ni ñoo fi ñëw tey ziar si leen muy surtout sëriñ Touba ngeen bokk ki nga xamante ne moo di sëriñ Bassirou Mbacke loolu looy yëg waaw ñu ngi nuyu ñëpp di jaajëfe ñëpp di leen ziar bu baax a baax den wax ne daayira bii sax man maa ngi nekk deuxième coordinateur bi muy Isbilaay Karim kon ci laa bokk waaye nag euh, bi ñëwee fii moom dama ciy taxawee ñaari cër ndax taxaw naa ci en tant que membre daayira bi ak ak euh, ñi nga xam ne nii ñoom lañ ñoom lañ fekk si ziar leen yëgte bi nag weesuwul mbégte mu kawee kawee ndax say mbokk ngeen bokk deret bokk pas-pas ñu jógee dëkk ba dëkk ziar si la ngir yàlla ak jëm Sëñ Tuubaa rek loolu moom nekk loo xam ne lu lu kawe la ci ñun lool daal waaw wax dëgg yàlla waaw. ndeysaan am na solo kon ren moo nekk première édition. kon ñu séntu nañu kon war nañoo séntu ne bay fas yéenee woy chaque année kon daara bi nañ fas yéenee ñëw ngir di leen ziar chaque année. waaw ren mooy ziar bi ren mooy première édition bi nga xam ne ñu ngi koy doog a amal sax waaj nañ ko ay yoon fomm ko ndax kilifa yi nga xam ne ñoom lañ woon a fekk si ñenn ñi du leen fi fekk waaye bu dee jëmmi kuréel gi moom ñëw na fi ndax cant gi nga xam ne moom la Serigne Alhaji seex di def ñett at yi yépp ya, kuréel gi ñu ngi fiy ñëw di fi teew di fi jàng waaye bu dee GR bi moom ren mooy ana bi njëkk te it fës nañ yéene di ko defee nii at at at mu jot incha allah rabbi. incha allah mbake bala am na solo jaajëfal nañ la bu baax ba wax ji am solo ñu lay delloo jabat la jaajëfal bu baax ba ñun waa VCM ñu si jaajëf.